ah mbokk yi déglu leen le 29 octobre 2023 ci arène nationale doomu Grand Yoff bi doomu Fuuta bi moo woote onoon bandiraabe Fuuta production ñëwatina na indil leen combat jànk combat bu metti combat bu neex Pokola Balde mbokk yi du xam ngeen ko doomu Pikine surtout Fallaye Balde bi moo fay jàkkaarloo ak gàkku 2 puleew Balla Gaye numéro 2 doomu Géejawaay mbokk yi combat boobu la Fuuta production jël daal di koy jagleel le choix de la jeunesse Mame Boye Diao candidat au présidentiel 2024 combat spécial bi laay jël daal di koy boole ak Jackson drapeau Ousmane Ndiaye mu baax mi waaye mbokk yi ci bés boobu du xam ngeen Boucher Ketchup ndaanaan la dina fa jàkkaarloo ak Jokel champion bu mag bi iboobu Kër Mbay Fall mbokk yi moo fay jàkkaarloo ak Ñang Baalo caatu piol bi du xam ngeen ko moo fay jàkkaarloo ak Ama bu Malika Boy Grand Yoff jàkkaarloo fa ak Boy Niang numéro 2 Boy Niang junior jàkkaarloo fa ak Bébé Imo Kirit dina fa jàkkaarloo ak Batika waaye Paquetas dina fa jàkkaarloo ak caatu Wuteng Robert ak Assane nag ñooy ubbi bés bi Fouta Production ne mbokk ma wéet ci bés bi ndax King Boisson dina ànd ànd ak man harmonia ànd ak man tey Fouta production doomu Grand Yoff bii du tëjoon na arène nationale daaw bu ren bee nar a dàqati le 29 octobre ba xale yegg si arène ñu xam ne lamb xale ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi ñu seetaan ginnaaw bu ñu leen nuyoo rek da leen ziar xew-xew nag moo am xew-xew bu rëy rëy muy lan muy sargal ki nga xamante ni tey moo di ma Macoumba Diouf nekk maire Latmingué waaye aussi nekk DG horticulture dañoo koy def nag Sall Ngaaru production nee naa leen nag structure wala label la boo xamante ni tey vraiment gis nañ tey ñu ngi béy seen waar ñu ngi béy seen seen seen ñu ngi ñu ngi def li nga xamante ni tey moom mooy promouvoir la culture sénégalaise te culture nag tey Sénégal kenn mënu ko wax te waxoo làmb njiital la nag ah li ñu naan jigéen ju mën góor ah une très brave femme muy Njira Sall nekk si si si si si ba waaye aussi am na équipe boo xamante ni tey ñoo ne si ginnaaw ànd ak moom ci liggéey bi ku si mel ni Sitor Sène ku si mel ni Cheikh Touré ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni tey ñëwuñu waaye Sall Ngari ginnaaw ba mu la nuyoo ziar la bàyyi ma bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan à travers les différentes plateformes. waaw mooy njiit gi. Mm-hmm. lu waral njaak mooy njaak. Mm-hmm. muy docteur Macoumba mm-hmm. di nuyu njëge ñaaleem ñëpp. Euh, di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa fi àndal muy sama staff ak ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp mu mel ni Tambayang Loum ak mhm. ñeneen ak ñeneen ak yéen borom site maa leen di nuyu di leen di jaajëfal. pourquoi le choix de docteur Macoumba Diouf. Euh, loolu dama foog ne euh, warul nekk Saloumérène parce que aduna yëpp xam nañ ko mhm. c'est quelqu'un ko xamante ni dafa bëgg culture séeréer mhm. di dimbale ñi nga xamante nii ne ce sont les petites entreprises les entrepreneurs du moins ñoom ñëpp euh, ku ci baab bi tey dem ci moom amoo porte ferme tu vois mm-hmm. tout est ouvert euh, faciliter ñu ñëpp en tant que jeune donc du coup dañ ko ci gërëm di ko ci sant mm-hmm. xam ne il est là te ñun aussi xam nañ ne il la pour nous donc euh, di ko ñaanal yàlla fi mu nekk mu gën a yegg ci kaw ci kanam incha allah. Sall Ngara production nag ku ko xam-xam ne. njogoyne siin saalum ten yoota makumba ten yoota makumba geeno a ñëwta nda cosaane njogoyne siin ten yoota makumba geeno a ñëwta yaakaar naa ne Diouf war na parce que fii su ma juumul bi ma fii mujj remise de drapeau la woon boo xamante ni tey fan si club Mbaye ak Loum ñoo ko tëggoon tuddee woon ko la docteur Macoumba Diouf kon yaakaar naa li ma li may waxal rek c'est une personne sociable serviable waaye accessible disponible mm-hmm. gis nañ nag tey nit ñi des maanaam tey euh, ni ñuy babeekoo di ñëw si moom waaye tëjul ay buntam kon tey gis nañ ne aussi mu ubbil Salla Ngari pour Mbaye ak Loum moom fu mu nekk rek xam ngeen ne moom du yomb waa bés ba je pense que tout est possible. Mhm. et da ngeen fa gis loo xam ne mënu leen ko gis. Mhm. muy côté làmb. Mhm. di côté cosaan ak aada. di côté aussi politique parce que. Euh, nit ku mag lañ ko tuddee koo xam ne day yëngu ci politique koo xam ne tey ay jaar-jaaram ci politique du loo xam ne dañuy toog euh, tey di ko lem-leme euh, di ñaan aussi président bi mu jox ko place am ci nguur gi waaye lañ koy ñaanal ak leneen tout sera là-bas. Mm-hmm. lépp dina fa am incha allahu rabbi waaye li ñuy wax à chaque fois rek derrière chaque grand homme y a une très grande dame. Mm-hmm. docteur Macoumba Diouf man jabaram laay sant te yaakaar naa tey fi képp ku fi ñëw di fi andi lettre de parrainage wala nga am fi soxla wala nga am fii boo ñëwee soxnaam moo lay njëkk teeru. Mm-hmm. jox la cër jox la respect bi war te loolu aussi c'est à magnifier kon doctor ñu ngi lay ñaana rek ah fi nga bëgg a yegg yàlla yeggale la fa. amateur bu mag la nag day dund loolu ko euh, maa ngi lay ziar. Boucar maa ngi lay jaar di kontaan ci dajawaat ak yow. Mhm. vraiment di la dalal. Mhm. di bég lool ci sa teewaay fii. Mhm. li nekk énième parrainage bi ni ñu ko mën a waxee tey si at bi docteur Coumba Diouf bokk na ci rare personnes yi nga xamante ni tey mën nga lim plus de dix voire quinze parrainage yoo xamante tey lépp lamb la waxuma la nag yeneen yi ay guitare yeeg yeneen ak yeneen yooyu lan moo lay poussé à chaque fois ku ñëw doo bëgg a tas yaakaaram. Euh, jërëjëf euh, Boucar. Euh, d'abord li may njëkk a euh, wax mooy kontaan ci bés bi di gërëm soxna Njira dinaa ci ñëwaat léegi bu njaa bu bu production mook équipe di ko féliciter ci euh, yoonu entrepreneuriat bi mu jël gëm boppam. gëm ne jeune bu taxawee dëggal boppam comme ni ko xale yi di waxee mën na ci génn mu ànd ak xale def liggéey bu am solo loolu dama ko ci félicité di ko ci ndokkeel mais aussi di ko ci ñaanal euh, bu loolu passé damay gërëm mbokk yi nga xam ne yëpp bàyyi nañ seen yitte ñëw fekkee bés bu tedd bi bien sûr ñu njëkkee leen ci yéen ñi nga xam ne euh, bu mbir yi amee solo rek fekke ngeen ko tey ñëpp mënuñ fi woon a nekk waaye dina mel ni buñ jógee fii dina mel ni ñëpp a ngi ndax ñëpp dañ ko yëgandoo kon Boucar yow vraiment yaa ñu mel ni yow ñu ngi leen di féliciter parce que suñu tiitar ngeen yéen parce que doomu séeréer ngeen gëm ngeen séréerité ni ma koy waxe entre autres gëm ngeen làmb te métier mi ngi mi leen yàlla dénk yéen a ngi ciy taxaw séeréer gi gën gaa rafetinu taxawin kon vraiment yow ak ñi nga ci àndal ni yëpp les hommes de presse les hommes et femmes de presse maa ngi leen di féliciter di leen gërëm mais di leen féliciter sax ci ni ngeen moderniser mbir mi di nga boo toggee ci plateforme yi di seetaan affaire lam daf lay gën a jox plaisir nga dem intéresse ci affaire làmb nga xam ne nekkatul rek folklore lépp ngi ci te te te dinaa ci ñëw ba ci activité génératrice de revenu donc loolu lu ko ëpp njëriñ amul kon vraiment yéen tamit maa ngi leen di gërëm di leen félicité di félicité euh, vraiment sama mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ko fekkee si euh, madame Diouf nga xam ne moom culture rek lay lay lay lay dund bañ na ko ba xam naa xam naa ne moog Njire war nañoo xaritoo parce que promotrice la bu bu dafa mel ni Njire rek waaye promotrice la moom ci boppam yaakaar naa ñoom seen bopp mën nañoo daañu déggoo daal euh, ku ci mel ni madame le maire Ami Ndaw Tall gis nga ne ñëw na ku ci mel ni euh, suñu cousin bi Doudou Seck Ndiaye euh, mu ngi nii toog ku ci mel ni Madou nga xam ne mag la ci ñun conseiller la ci ñun. nit ku baax la di kilifa ci gox bañ jógee muy Latmingué ku ci mel ni Moussa Diabo nga xam ni mënoo xam Latmingué te xamuloo Moussa turam ak turu Latmingué dañoo ànd ndax taxawaayam bu am solo ca gox ba ci fànn yëpp nag ci wàllu dimbalante jàppal ma jàpp lu ci wàllu conseil lu rafet luy dox ci commune ba rek Moussa fekkee na ko donc euh, mu ñëw fii ñëw Ablaye Sène ñu ngi nii nga xam ne Ablaye Cogère la nekk moo jiite ndaw suñu commune waaye ci ci wàllu politique waaye à part affaire politique mu ngi ci mairie ba yore ndaw affaire ndaw nii jeunesse affaire sport ak affaire loisir di ko def nag liggéey bu di fa def liggéey bu bu mucc ay moom moom Ablaye ma koy félicité di ko gërëm di ko sant di ko sant aussi beneen yoon parce que euh, daanaka jokko bi ak njira bu amee ci cadre euh, nu sàll ngaari production ci Ablaye la la jaar donc vraiment di gërëm ñoom Mame Cheikh di gërëm ñoom ñoom Fatou Biteye ñoom Sophie délégation bi yëpp nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii fekkee si euh, bés bi di wax nag ni euh, li may commencé te daanaka mën naa fa yem ci wax ji moy bés bi waaye surtout ñu ko organiser ñan la ay jeune la xam nga ñii day duñ jël gaal de Boucar wala ñii nag xalaat nga jël gaal. duñ dem Nicaragua duñ dem Nicaragua non daanaka propos yi mën nañ ko yemale foofu ñan lañ mi mën ñu organiser làmb pa buy dox muy të waxin la rek adulte bu mën boppam nga xam daf koy def rek. peut-être pour bégal nit ñi hmm. mais ku nekk xam nga ne ah làmb nekkatul rek affaire culture yam ci hmm. làmb fépp lay jëriñ ba ci affaire entrepreneuriat am xëy hmm. teraanga làmb ñaata nit ñoo ciy tedd fi mu nekk nii mais su ma ñëwaatee ci ci ko organiser ñii boo leen gisee mag newu ci ay jeunes lañ. ñu décidé di ay nekk ay jeunes séeréer ak jeunes yu bokk ci yeneen ethnie wolof tukulóor nangam ay jeunes rek yu Sénégal yu décidé ñun dañuy dugg ci affaire wu nekk promoteur u làmb bon innovation la waxuma ne amul waaye bariwul kon déjà ñoom won nañ ne ndekete même nekk promoteur u làmb xeetu débouché la ci ndaw wala boog mën naa doon en tout cas xeetu débouché ci ndaw Sénégal ci ci ci yëngu bu leen jox teraanga parce que bii mooy nangamelu balaa may juum boo laa laaj di dina la ko wax nangamelu làmb bi organisé foogu ma ne bu ko doon di perte di ko organisé amu ci benn njëriñ moo xar yi mu àndal foogu ma ne ko def defaat ko defaat ko defaat ko foogum ko luñ ci am na xeem naa ko yàlla nañ ci am lu ko ëpp mais gëm naa ni am na lu ci ne waaw mais loolu Boucar loolu foofu lay taxaw ma félicité ci encouragé leen ci nit ñi xam ne bu ñu gis rek ndënd mi macha allah mënoon naa doy sax ndënd tëgg mu neex mi boo gëmee boo gëmee culture soxna Mbaye a ngi yëkkati doy na ci ci ci ci dem làmb waaye du loolu rek li lii di jur jar na ñu def loolu mooy dina bëri ñu ci tedd mbëri lay njëkkee mbëri bu leen wóor na bu ñëwoon ci làmb njëre ba duñ fa jëlee dara duñ fa ñëw de woor na ma ne xam nga ban heure lay commencé mais deux ou trois heures avant boo ñëwee dañ ne euh, fermé nañ euh, liste bi champion réew mi yëpp euh, xam naa lii mooy seen seen invitation dinañ fa daje mais xale yooyu lu fa indi Boucar mooy wut ci teranga yaakaar ko ci kan ci njira njira di jeune njira est-ce rek moo ko def déedéet ay jeunes la lu luñ ci am yàlla na woom moog jeunes yi ñoo koy bokk fu mu jëm ci ay kër kon buñ nee làmb di wax promoteur di wax parrainage nga gis ndënd yeeg woy wi mais sa gis-gis dafa gàtt ñun ci ku ñu xam dëgg-dëgg xam suñu jaar-jaar taluñu foo ci ñu xam laa wax de taluñu foo xamuñu ko kon lu ñu dugg ci lu nekkul njariñ mu mel ne kon dafa am beneen vision boo am. si si si si làmb ji bu bokkul ak peut-être euh, folklore beeg yu demee noonu épanouissement bi. Eh, très bien maanaam li tax ma insisté ci côté boobu tey Boucar hmm. mooy dama ne folklore bi hmm. épanouissement bi rek waroon naa doy hmm. ndax ki loolu saf feexal xol lu ko ëpp amul dama ne bu yemoon foofu rek mu mu mu bëgg a baax waaye dama ne romb na foofu loolu laa wax léegi nekkatul rek. animation bi xumbaar déedéet sori na foofu la jur ak ñam koy jural ni ñu bare moo bari mu doon kon njëriñ ci biir ak ci biti li tax ma taxaw ci côté folklore bi mais dama bëgg nit ñi gis fi may waxee mm-hmm. ñu bañ a jàpp làmb léegi comme rek affaire euh, fo romb na ko bu yàgg. kon làmb léegi mën nañ ne insertion la. business la mm-hmm. buntu la mm-hmm. pour insertion jeunesse si buntu la pour développer entrepreneuriat jeune ci wàllu làmb mais ci leneen la làmb lu lu taxoon mu jóg cosaanu làmb lan la Boucar mooy féete ndam fekkee féete se nga béy nawet wàcc dugub ju bees am du rek ñu nekk dugub ju bees euh, commencé di di di pëtam gerte di di di dem ci di wër dëkk ak dëkk di dem ci làmb yi ci cosaanu ñun de loolu lañ dund ci cosaanu làmb donc donc li ñuy wax ci tubaab fête de la moisson maanaam féete njàmbarte féete ak góorgóorlu moo doon moo doon cosaanu làmb si nekk loon pour pour pour pour kii bi kon cosaan kon làmb jo làmb jooju nga xam ne njàmbaar la mës a wone di di jaajëfal ñu am lu ñu yëngu ci wàllu góorgóorlu loola rek jar na ñu def làmb loola dafa mel ni secret làmb loolu la delloo siwaat ci jamono bii biñ ko moderniser ak promoteur yu mel ni ñoom jira ñu ciy def liggéey bu am solo dafa génnee la la la la mbéy ma doon génne nga xam ne mën nañ jëf doon jëfandikoo après bëgg ci ba di feete mbey maa ngi koy génne mais làmb ci boppam mu ngi génnee lu ni mel walla lu ko sot wala mu ngi génnee lu dooleel mbéy mooma tey njëriñ mi tey war na ma ne am na tool te ñàkkul jiw wa wala engrais ba mu ngi ko jëlee ci làmb yi mu doon organiser euh, def ci def ci tool nawet nangu macha allah yàlla na yàgg du si am leneen. kon maanaam lii bul bul gis rek li ciy génn directement ca bés ba da ngay xool fi koy investiraat ci yeneen activités yi mën a dem ubbi salle de coiffure salon de coiffure euh, am lu mu def xale yi mu àndal du tout le temps la ñuy def làmb buñ ci paree peut-être am na ci ko nga xam ne mécanicien la am na ko nga xam peut-être menuisier la euh, euh, très bien dama bëgg wax ne li ciy meññee mën na sos yeneen i xëy hmm. yeneen activité yu sos teraanga kon boo gis làmb léegi da koy xool bët boobu kon xale bu ci nekk nga xam ne nangu na loolu waxul ne don man ka damay ñëw euh, cravate euh, nangam étoile euh, ñeeng ñeeng ñeeng mais damay dem sonni am lu ma am te làmb ji nit mën na ko boo ko gisee da koy encouragé da koy félicité kon ñu nangu bi ñu nangu gunge leen ci lii d'abord loolu mooy cosaan li mooy wane ni làmb du am po rek léegi làmb comme Saalum la ñu am Dakar gi am na ay promoteur amul ku ci ñëwul seet si am na ñu ma nangul waaye comme def lépp mënta nekk ñu ne buñ defee benn fii def benn fële ndaxte tey ñoom ñi Saalum ay Saalum la ñuy yeewoo seen njaboot ma nga foofu kon bu ñu gisee ku nekk fii mën loolu gis ku nekk Saalum ko ko mën mais ki nekk Saalum la la ñuy la ñuy àndal def ko voilà voilà gën a gën a donc man ci ñi gëm Saalum laa bokk li ma ci jéem li ma ci mën maa ngi koy jéem maa ngi woo doomu Saalum yëpp ku nekk fa mu mënee na ñëw dugal ci loxoom y compris gunge jeunes yu mel nii ba nga xam ne gaal yi des na ko bàyyi ndax xale yi nag kenn du leen bàyyiloo mbëkk mi boo tegul dara ci seen loxo te te encouragé leen ak jàpp leen. jàppale ci lu mel nii ñuy yëngu ñu réussir ci am ci seen bokk na ci liy tax ba duñ jël gaal yi kon daal euh, Boucar boo ko seetloo orientation plus euh, développement moom laa jël ci wax wi waaye loolu la sentir tey euh, ba tax vraiment ma bëgg ci recevoir fi ñoom Sall Ngari production ànd ak mbokk gi waaye nag di wax ni maa ngi waa ngi woo bés boobu ñëpp waaw parce que bés boobu nag bésu Sine Saloum la mm-hmm. waaye bësu docteur Macoumba Diouf la waaw te nag Saloum wax dëgg yàlla bëri naa fi aw ma solo gaa waaye bëri naa fi nag ay mbokk ay xarit ak ay soppe ma bëgg ñoom ñëpp plateforme bu ñu ko taalee wala fu ñu mënti yéegee xibaar bi mooy seen invitation ma bëgg cœur de ville balaa làmb ji di commencé kenn bañ faa xaj ñun ñëpp ñu ñëw daje fa pour lan pour encourager xale yi pour encourager xale yi aussi parce que mbër yi daa teg te mbari yi ay xale lañu pour encourager waa ahlu làmb euh, lii daal euh, ak ak jàppale euh, njabootu xale yi Saalum yi pour que ñu jëm kanam. Saalum aussi euh, pour développer fa làmb surtout parce que gis nañ ne làmb dafay gëj te depuis Mike Tyson gëj nañ gis peut benn phénomène bu jógee au niveau de Kaolack ñëw aussi te loolu li mu koy waxee à chaque fois rek làmb aussi la vocation de la politique c'est le waaye la politique d'aujourd'hui doit être l'insertion xëy na ma docteur loolu la gis ba tax à chaque fois fépp fu mu gis ne rek ay débauché am na merci ci fàttali bi nga ma ko fàttali lan nga ma fàttali mooy làmb ci style bu bees bii làmb comme business doomu Saloum moo ko fi indi mu ngi tudd Mohamed Ndaw Tyson dama faral di wax ni euh, roi des arènes yi fi nekk yëpp ci ñoom lañ njëkkee ndax ñoo ëpp cachet yàlla na leen yàlla na barke te yokku ak ñeneen ñi tekki ci làmb yëpp dañoo war a sant Tyson parce que làmb comme métier ay la yëwen nag moo ko fi indi moo ko révolutionné kooku doomu Saalum la kon bu ñuy wax làmb comme business ay doomu Saloum ñëw bëri nit ñuy bëre waaye doomu Saloum yuy organiser pour nit ñi bëre ñëw toog muy njira Sall ak Sall Ngari production kon xam nga ni li war a am rek moo am kon xam nga loolu il faut mu doon mbégte ci ñun kon looloo taxaw tax nag maa ngi woo waa Saloum yëpp pour que ñu gën a gunge xale yi ñu gën a jàppalante ak ñoom parce que ñoom. ñun ñoom la ñu am ëllëgu réew mi ñoom lañ ci yaakaar ñun it ñoom it ñun lañu am ndax ñun ñoo war doon seen ndëgër lay ba ñu mën a jàll kon daal appel boobu aussi maa ngi koy euh, def di wax ne bu bés baa ku nekk na nga ci mën a jàppee na ni jàppee kii mën a làmb poosam teew si na ko def ki mën a jëndal ay xaye ay jeunes ñu ñu écurie yi nar Euh, yi mbëri nar a génne pour ñëw jàpp leen ki mën a defal xale yi t-shirt def ko ku leen mën a luweel kaar def ko donc lu waay mën a def rek ba bës ba doon bés bu taaru am succès nga xam ne succès ba bu ñu ko euh, tegee ci table ji ña cay jëriñu dafay bari lu ci waay mën pour loolu am rek euh, na nga ko def. kon rendez-vous le 4. rendez-vous le 4. Mm-hmm. ci kër ville bu Kaolack. di waa ahlu làmb waaye nag di wax ne ëmma xam ngeen ne kenn la ci man donc ëmma maa ngi koy invité euh, xam naa ni mhm. euh, nag am na làmb mhm. euh, am na combat du moins te vrai combat la mhm. waaye ëmma moom na woon fa woon rek kooku moom bu soobee yàlla doxantu lay doon ci ñun. bu amee combat daa am combat. moom lu leer la. moo taxit it maa ko non seulement maa ngi ko ciy ñaanal. ndam lu sedd guy ndam lu rëy mm-hmm. waaye aussi incha allah daañu euh, euh, jàppalante ak moom mm. ak euh, équipe bi parce que équipe boobu sama équipe la. dégg nga li ko waaw non dé dé dégguma ko. nee na dama am dama am nag problème. waaw madame Diouf xam naa bu fi jegoon dina dina ree. Ah. dama problème ci bëre parce que Tapha it. Mm, la. waaw sama sama xale la daf ma fekk nag ak ëmb gaa waaye sama xale la eh, li may wax rek mooy bu mu xiir bu lool ci ci non ci ci kaddu parce que lamb yi rek mu pare bu pare ñu ne pourtant moo ne woon moo ne woon moo woon moo ne woon loolu ñuy jàkkaarloo ak ëmma bëri na lim leen di daal mm. dama koy fàttali rek ci yem foofu mm-hmm. eh, Gris Bordeaux ëmma foofu rek laa yem ci affaire door foofu moom boobu moom baaxul parce que ñun der lañu der waaw donc donc loolu moom du du du du du du waaw ba ma ji ëmma mais defe naa gris gris la woon gris moo ko doon dóor dóor yu yu mat yi mhm. muy fomb di collé affaire yi di ko di dem ci kawam wala gars yi dañoo fàtte loolu mhm. loolu loolu dóor mënut a passé loolu kon boobu baaxul parce que ëmb der la voilà donc vraiment yal na yàlla d' abord may leen wér ñoom ñaar ñëpp ñu fekkee ko ak wér ak tal vraiment ñu nekk au plus fort de leur forme euh, vraiment euh, ñu bëre ko ci jàmm ak salaam waaye ëmb nag mënuma wax mukk te euh, wane wu ne wane mooy sama mbër mooy sama rakk Euh, mooy mooy vraiment ki nga xam ne suma ma sañoon euh, c'est que jour boobu comme on dit ndam du dem ndam du dikk ndax euh, ndam lay doon rek pour jeunesse bi yëpp parce que la fête de la jeunesse mais dina am fu bi dem te vraiment yéene naa ko am loolu nag ñi ma xam xam am xam nañ ne lu yàgg la waaw vraiment ñu ngi woo ñëpp di woo bien sûr ama di woo champion yi yëpp rek rek jamono yi rek ñu ngi ñu ngi jox koo xam naa sori na fi waaye ñoom champion de lutte yi nga xam ne yëpp euh, bëgg nañu làmb fonk nañu làmb xam nañ ne Kaolack cosaan la ci làmb kon nañ ñëw fekk si ngir jeunesse bi mérité na ko mm-hmm. nañ ñëw fekke si ndax xëy na euh, man euh, seen rak laa ñi seen ñi jaay ci ñeen ñi mën nañ ma terale loolu waaye war nañoo ñëw it pour delloo njëkkal làmb mais aussi Mohamed Ndaw Tyson ndax dëkkam la mbir mi di xewee fa la wasilaam dëkk mu Cheikh Ibrahim euh, léppam Kaolack la te fi ñu toll tey moom bokk na ci ñi leen fa moom Tyson kon li waral tey jeunes yi ak euh, ahlu làmb teew si lamb ji bari na euh, ñoom ñoom ko gën a xam kon maa ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu teew si

ah mbokk yi déglu leen le 29 octobre 2023 ci arène nationale doomu Grand Yoff bi doomu Fuuta bi moo woote onoon bandiraabe Fuuta production ñëwati na indil leen combat jànk combat bu metti combat bu neex Pokola Balde mbokk yi du xam ngeen ko doomu Pikine surtout Fallaye Balde bi moo fay jàkkaarloo ak Gàkku 2 Poulew Balla Gaye numéro 2 doomu Géejawaay mbokk yi combat boobu la Fuuta production jël daal du koy jagleel le choix de la jeunesse Mame Boye Diao candidat au présidentiel 2024 combat spécial bi Lo laay jël daal di koy boole ak Jackson drapeau Ousmane Ndiaye mu baax mi waaye mbokk yi ci bés boobu du xam ngeen Boucher Ketchup ndaanaan la dina fa jàkkaarloo ak Jokel champion bu mag bi Ibou bu Kër Mbay Fall mbokk yi moo fay jàkkaarloo ak Ñang Baalo caatu piol bi du xam ngeen ko moo fay jàkkaarloo ak Ama bu Malika Boy Grand Yoff jàkkaarloo fa ak Boy Niang numéro 2 Boy Niang junior jàkkaarloo fa ak Bébé Imo Kirit dina fa jàkkaarloo ak Batika waaye Paquetas dina fa jàkkaarloo ak caatu wuteng Robert ak Assane nag ñooy ubbi bés bi Fouta production ne mbokk yi du ma wét ci bés bi ndax King Boisson dina ànd ak man ETDR ànd ak man harmonia ànd ak man tey Fouta production doomu Grand Yoff bii du tëjoon na arène nationale daaw bu ren bee nar a dàqati le 29 octobre ba xale yeeg si arène nationale ñu xam ne lamb xale